maymunata mbokk yi gannaaw bu nu sàbbalee sunu borom subhaanahu wa taala ci màggom gi julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi ñi ngi am ngor nag yëkkati sunu kàddu ci lu amul benn deng-deng ne jërëjëf tubaax Tuubaa Xaadimu Rasuulillaahi di am mbégte lool ci turu famille sëriñ Moodu Faati Xari te sëriñ Cheikh moom sëriñ Moodu Faati Xari nekk ca bopp ba ñu wuy si wooteb lislaam wooteb mbokk woote diine woote bu rafet te moo di lu toll nii ku ko sumb woola ne la kaa ñu ànd ci wax dëgg yàlla nga ñëw teew ànd ko ak ñoom gën ngaa rafet ay àndin dafa di kër gi ñu woo pour ñu ñëw ànd ak ñoom lu mel nii dafay kër goo xam ne tey ñépp teg na ko bët muy soxna Maymunatu bintul Xadim waaye noonu ki nu boole ci yëf yi te amul kurut moom muy sëñ Moodu Faati Xari nag <clears throat> ba muy joxeñ Maymuna ngeen baal ma ci ku xamut bu ma ko woowee affectueusement Maymuna ndax cofeel ba ko sëñ Moodu di joxeñ ñu bari gisuñu woon soxna Maymuna ba tax na ba soxna may munam sëñ Modou Faty Khary mii nga xam ne ni kenn mënu koo jël ci loolu ndax yàlla dogal nag dundam gépp mu jeexal ko ci wet soxna si bari na naam ñu tudde soxna si ay turandoo waaye nag tudde ko ñaari turandoo ñu bokk nekk ci kër gi di tarbiyewu nga jël sa yeneen ñaari doom yoo tudde ñeneen joxat soxna may ñuy ñent ci biir kër gi soxna may munu mi mën na ko seere kon mom sëñ Moodu fatih mom mom sëriñ massa ki nga xamne nak nun sunu bokku ci sëriñ Touba mom rek lañ koy sant atomit dañu doy sik walis lu mom. ba taxna ba kep ku ko cëral rek danañ la won ne nak jot nga ñu tay keneen ku ko gannaawal ak ku man di doon nak bu boobaa dañ koy won ne yëguñ na gane nga àdduna kon yéen ñi ko jëmmal ci conference bii nga xam ne nii li ci sëriñ Afé jottali ci ay kàddu kàddu yu rafet ndax ab jullit dafa am ñaar yu ko war a ñor te moom lan dégg ci wax ji mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tatabua athari nabii sallallahu alayhi wa biko ñaarel moy di nab nabi ci alquran tadabbur ayatil quraniya te ñaar ñooñu liko yalla yàllay bëgg-bëgg gën na ko bëgg ci guddu gu sel gi nga xamne ni moy la lutu xadar mi nga xamne nak mom la yàlla wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadri wala bu la neexee nga ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فودك دغ سيرن بي دي واخ رك ليك ليك داي واخ سي غودغي با ملنا كو سونغ ويرو يا خير ضيف اتى بالبسر والمدد اهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا مكرم الضيف جار كان او يا ذا البشارات بالايات والصور bil ayati wassuwari weeru koor dafa mujj ala dawme ci ko weer yi te am lu tax mu ala dawme moom te moo di guddi laylatul xadar bi yàlla dëxëñ ci biir nëbb ko ba amee guddi gi am na lu tax mu ala dawme moom mooy alxuraan bi wàcc ci biiram moo tax sëriñ bi di wax ba naan fii ka jaadalana bi laylatil qadri daatil fadli wa raxati mbokk yi pour dellusi ci sama mission mooy njabootu sëriñ Modou Faty Khary maa ngi nuyu bala ma koo fàtte njabootu sëriñ Afé gi ma fi fekk gépp ñoom ñëpp di ko teg ci loxo sama xarit sëriñ Cheikhouna mu jotalal ma ko ku ma xam ak ku ma xamut ci ñoom euh, sëriñ Cheikh Abdou li waral lii am solo mooy waa kër Serigne Affe ñu ngi koy def àdduna bépp xam leen ci amaan na bu ñu toogoon ñun du ñu xam ne ñoom ñaay waa kër Serigne Affe ñu ngi door a gisante gisante bu solonel bii kon ñi koy dox ci kër sëñ Modou ak ñi koy dox ci kër Soxna Maymuna Bintul Xadim ak ñi koy dox ci kër wax dëgg yàlla seen communion bi seen jataayu tey bii bokk dogoondoo te mbusoo bi man fuuf ci ndox mi ah, lu rafet la lu yàgg war a am la waaye tey lay door am ñu di ko sante njabootu soxna Maymuna bi nga xam ne ñoo ko dox di ci góorgóorlu ba kenn ku ne ñu woo ba nga teew yàlla dogal nga daje fi ak sa moroom communion boobu door am sëriñ Cheikh nee na ak njabootu sëñ Modou Faty Khary gépp ñi ngi gën a tàllal loxo loxo boo xam ne mësta banku ndax wax dëgg yàlla ku jiite njabootu sëñ Modou Faty Khary ni ma ko waxee léegi mu am jamono yoo xam ne nii ci ëttub soxna Maymunatu bintul Xadim ñeenti doomam yu jigéen ña nga fa di tarbiyewu kon loxo bi mësta banku waaye yeesal gi ko sëriñ Modou Mahfouz Mbacké yeesal ànd ko ak soxna Jaaratullahi Eh, Mame so Bali soxna Bali ñu jaarale ko ci seen dom di serigne Abdou mi nga xamne ni kenn la ci ñun serigne Cheikh neena na yekna bu baax mo waral rakkom yi di góor di jigen mu xamal leen ne bis la buñu wara japp bu ko kenn ciof na ñew fekk ci soxna may ndax loxo bi ñu Mahfouz talal loxo bu musta banku la sa kon bu ma ko sañoon nag damay continuer mel ne kuy wax nag ci guddi gi ndax guddi gi nag yàlla la soob mu dëxëñ ko yàlla sunu boroom la soob mu dëxëñ ko ci bis bi ko soob dama ne sëriñ Afe junj na ko léegi danaa leen ko wax yàlla bu ko sooboon guddi gi sax du nekk ci laylatul xadar sëñ Sàmbay mu baax ma da daan wax ne Yalla moy ki nga xamne da nan la suba jant du fenk nga xey suba jant bi ne tang te yalla mako waxon waxam du dañ ku ta xam rek mëno xam bis bi nek laylatul qadar bis bi yalla yalla moy bis bi li njëkk yeme ci wax ji moy alquran wacce nan ko fi laylatul qadar mu melne intégralement ci benn guddi lañ ko wacce ata ah, boy xol ñaata at wala ñaata fukki at moo am alxuraan di wàcc bis bu set mu wàcc mu mel ne boo koy misaal ku xamut loolu da nga ko naan dafa mel ne banque de données boo xam ne yàlla daf ko créer denc ko mën nga am sa site wala lum man di doon denc ca banque de données boo xam ma nga fa di nelaw mais créer nga ko am na waaye mettre ko ko en lii moom la sëñ Afé wax léegi yàlla indi ko ci denc ko ca umul kitaab lañu wax ba mu yàgg ñu ne denc ko wàcce ko ba ci baytul azza mooy asamaan si nu gën a jege denc ko fa di xaar nag ak suñu ñàkk solo gi circonstanciellement lu xew yàlla wàcce loola nag daal di koy feeñal ñu door koo gis ñun fekk na yàlla mi nga xam ne qada ak qadar ci loxoom la nekk yàlla dogaloon na démb na événement bi dana am mu bind ko ci alxuraan daal di koy denc ca banque de données bi jour bi mu ko mettre en ligne mooy jour bi ñu ci jotee Muhammad génne ko mu nekk révélation bu ma nee baati révélation nag mooy texte sacré yi téere yi nga xam mooy téere yu màgg yi da cee am ay tex révélé am ci ay tex inspiré maanaam loo xam ne xadis lay xaw a tollool yàlla daal révélé nit mu wax ko ak lo euh, dafa inspiré nit mu wax ko ak loo xam ne nag alquranul karim yàlla moo ko waxal boppam wala sëriñ sàmba yi nee na bu la neexee sax nga ne aw daggit la wu jóge ca yàlla kon sëriñ bi pour tëje li ma ubbee te mooy sama mission mooy famille sëriñ Modou Faty Khary bépp te sëriñ Cheikh nekk ci bopp bi ñu ngi rafetlu jataayub diine bi ndax jataay bi bokk na ci li nga xam ne mën naa dundal lool guddi gi nga xam ne yàlla nee na nag xayrun min alfi comme ni ko sëriñ Afe wax nag xayrun min alfi shahrin yemale ko sax ci junniy weer dafay gàtt mu ngi mel ne bi yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam naan wuti leen xam-xam même bu ngeen doon dem ba Chine wuti leen xam-xam même bu ngeen ko doon wute ji ba siin duñ compter siin ñaata kilomètre la waaye dañ naan euh, siin boobu lil bordi masafa bi moo tax mu utiliser baatu siin maanaam mi ngi mel ne sénégalais dañ naan euh, ku dem ba kolikoro wala ku wuti xam-xam ba jaamal soriwaay ga moo tax ñuy wax kon laylatul xadar ngëneel li yemut ci junniy guddi waaye yàlla def ko misaale ab arab buy muslu ci dara sax danaan maa ngi koy muslu bi alf alf la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim kon daal sëriñ Cheikh Abdou yow mi toogee jataay bi njabootu sëñ Modou Faty Khary gépp ñu ngi lay xamal ne rafet lu nañ jataay bi tàmbali nga loo xam ne nag yàlla nañ ko mën a eggale te ànd ko sunu doomu ndey yii muy waa kër Serigne Afia Bousso nga xam ne ñoo bokk xemmemteef ci guddi laylatul xadar mel na ne wane nga yoon daal ne war nañuy gise gise bi am na tey kon yàlla mën naa dogal fi ñuy séentu ne euh, synergie maanaam énergie yu bari kenn ku ne euh, teg sa njëf fenn war nañoo mën a créer loo xam ne nii bis bu laylatul xadar yëngoo ci Touba lii am tey du mat asakay li war a am ci laylatul xadar te ñun ci loolu rek lan doon dox ndax ku daan def laylatul xadar ci kër ba mu yàgg nga yóbbu ko ci mbedd ba mu yàgg xëjatu fa nga dem ci dëkk def ko fa bu laylatul xadar jotee daaru karim débordé wax dëgg yàlla xam nañ ne ku ñu ci woo ñun sawar nañ ci lool ndax fi ñu jëm ñeme nañ ci loolu ñeme nañ ci loolu kon nag soxna may Muunatu bintul Xadim سرين مودو فاتي خريم باكي موم سرين ما سامرو اك سرين افي سونو نجاي سونو كليفا يالنا يالا ديفال سين جابوت باركي يالنا يالا باركيل جابوت كي ييب يالنا يالا باركيل جابوت كي ييب ا خمنا بو مودون واخ با سوبا دو دوي واي سانغ بي احسنتل الاداره ماغي لاي نيانال ñun ñëpp yalla nañ eggé eggalé suñu sabu liggéey bi rafet na téggu na ci xam-xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu sama kilifa yi ma àndal te sëriñ Abdul Xaadir moom sëriñ Modou Fati Kandi nekk ca bopp ba ñu teewal fi sunu kilifa. di xalifab sëriñ Afiya Bousso muy sëriñ Alxaaji Fadlu Bousso mu yebal mu ñu ñëw wuy si woote boo xam ne woote mbégte la woote bu rëy la ci lislaam waaye woote bu la bu rëy la ci yoonu murit di loo xam ne mbégum képp ku bëgg lu baax la muy bis bii nga xam ne ñi ngi koy waajale fii ci kër soxna Maymunatu bintul Xadim sëriñ bi di nuyu kilifa kër gi di as cheikh Mouhamadul di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu mottali mboolem ay yéeneem mottali itam yéene yi kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoom la wutu di nuyu it ak di soxna Bali, mom soxna Maymuna momit diko di ñaanal mission bu am solo bi nga xamne mom la soxna si bàyyi ci loxom sun borom tepp ko katan tepp ko wer may ko fan mu guddu ba mu agale ko fam ko bëgg agale fep waye nuyo bobu nak serigne abdou Abdul wax ne ñu jaarale ko ci serigne abdou Ahad mbacke gayne fatima mi tok nga xam ne mën nañoo wax ne woote bu am solo bii ak xalaat yu am solo yu tedd yi nga xam ne kilifa yi ma jiitu di Seex Muhammadul Yadaali ak Sëriñ Abdou Samad wax nañu ko xalaat bu rafet bu am solo boobu mi ngi bàyyi ko ci moom te mu doon koo xam ne xalaat buy doxal yoon wi di ko jëmale kanam di ko gën a rafetal yàgg naa jaare ci moom macha allahu taala di ko ñaanal moom it fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ko jottali loolu rakkam yu tedd yii nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi te ñoom ñëpp di suñuy xarit di suñuy wëlëre ñu ñëw nag ci turu sëriñ Alxaaji bu Buso ànd ak délégation bu am solo boo xam ne xëy na waroon dafay ëpp lool waaye li ko indi mooy ak daje dafa am ci bis bi muy ñetti xew yoo xam ne dafa dajandoo ci suñu kaw te fenn fu nekk ñenn ci njabot gi war faa teew sëriñ bi sak ay ndaw barab bu ne ña fa wara dem dem fa loola motax délégation bi tollu na mu waroon a toll waaye kon dañ fi gëna bari ñi ngi leen di ziara bu baax di leen ndokkel di am mbégte nak ci ndaje mii nga xamni ni lañu la tay ji ci barab bu tedd bi ci xew-xew bu am solo bi nga xamna mom lañuy def diko ko rafetlu lorit nak nag rafetlu go xamne ne ak rafetlu mënu ko fété kaw ndax yëf yi du ñaar du ñett lenn la lépp ci biir kër sëriñ Touba la amul ak xàjjalikoo te mag ñi ko jiite woon itam amuñu woon ak xàjjalikoo te du ko mos a am ba mukk li am solo rek mooy xëy na ku ne yaa ngi ko doon dundal ci barab waaye ñoom ñëpp lenn rek la ciy dàkk mooy ngërëmul Serigne Touba ngërëmul Serigne Touba loolu ñu ciy dàkk nag kon day wone ne ñoom ñëpp ñoo bokk ak bëgg. ñu bokk ak bëgg nag ñu ne ñoo ñu wax ne ñoo bokk ak bëgg su suñu mënula ànd am na ku ca wax lu dul noona kon yaakaar na ne woote bi woote bu yomb lay doon ànd gi itam ànd bu yomb lay doon te bu rafet lay doon euh, ñuy rafet rafetlu itam jataay bi lool di rafetlu waxtaan bu am solo bi nga xam ne ki ko doon def mën na noo wax ne ci ñun la bokk ndax noo bokk maam mii di sëriñ Afia bu sax muy sëriñ Afia ñag ci loolu sax ñu ngi ciy jaar di nuyu sëriñ Modou Mbacke moom itam mën naa bokk ci ñun ndax noo bokk maam mi di ko siyaare moom itam waaye ñuy wax ne du ñu delluwaat ci li Cheikh Mouhamadul Yadaal yi wax ak li sëriñ Abdou Samad wax ndax kon day mel ne wax waxaat lay doon te kon day mel ne woote gi ñu doon woote lu bennoo wax yi da koy dàq kon ñoom demaale nañ ñu géew li ñu waroon a wax ci ak rafetlu ci biir mbir mii ak woote bu am solo bi nga xam ne sëriñ Abdul Ahad woote na ko lool la day dugg ci biir kàddu yi sëriñ Abdou Samad dugg ci biir kàddu yu yi Cheikh Mouhamadul Yadali kàddu gi genn rek la daanaka ku ci xasoon wax rek mën naa waxaale ñépp ndax noonu la demee ñu fi teewu ñëpp ku ci wax mën naa yóbbaale ña ca des ndax lenn rek la kon kaddu mu gudd mu gatt kaddu yi la kaddu ngeureum la di wax nak ne bis bi nga xamne ne lañuy magal non day ndigal li mi ngi bayiko won ci Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacké nam ko diglé woon it mooy moom moo bis bi biñ koy def muy ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor yeb fa ñu fana ñu jang fa alquranul karim ci guddi gi mu Eh, yabal fa ay jankat ñu fanaan fa jang xasida bu berset mo fa yonel bopam aw nak ak teranga yañ fay wara def yep defal ko bopam ba mu ba lepp ak mu tambale di suwa gi ba fanaan ba bët lañ fay def lepp mu def ko ba mu xeye mu wo njabot gi ne len yoon wa ngok sa bu excété defelen ko ni lola motax ñu saxal ko ci bis bobu ginaaw mom moko tanon bis bi def ko ci ci aw definam waxit ne sa bu ak sa bu ak seetee jooju moo ñu saxal ko ci bis bobé waye du lo xamné dañoo tanal suñu bop bis ne bis sangam la def wala waxtu sangam la def loolu njaboot gi nekkuñu foofa njabootu serigne afiye fi ñu nek moy fu leen serigne Touba joxañ fofa la sax ba la leen fa mëna jëlé wat moy kaddu serigne Touba moom nga leen fa joxañu kon nak fi ak kaddu serigne Touba di ñu wat fofé fofé ñu serigne Touba joxañoon foofa la ñuy nekk ca loola la ñuy nekk te jàpp naa ne mbooleen ñi ñu séqal liggéey bii bokk ak ñoom teew ci jataay bii loola mooy laleen bàyyi ca la ñu nekk kon la leen bàyyi fa ñu ne bàyyi leen ca la lañu la ñu ne moo ñu bàyyi fi ñu nekk moo ñu bàyyi ci lu ñu nekk kon lu ñu mën a def lu may rafetlu jataay bii sant ci bu baax a baax a baax a baax nag sëriñ waaye di amaan meneen mbégte nag mbégte bi mooy sëriñ Abdou Lahad ñi ngi lay sant bu baax ndax kuy liggéeyal sëriñ Touba di ko liggéeyal ci ëttub soxna may Maymuna fonk xam-xam ak dundal xam-xam war na la waaye wax dëgg yàlla gis nañ ni comité d'organisation bii de ba nga ko jiitee ba léegi yaa ngi jëme kanam yëngu-yëngu yi ci wàllu xam-xam bu baax a baax a baax a baax te loolu bokk na ci li koy firndeel téere bii nga xam ne tënk ngeen ko ci waxtaan yi nga xam ne ñoo doon jàll ci at yi weesu mu doon loo xam ne day tax lañ ci doon def sax béel ba faw ndax téere moom lu àdduna yàgg-yàgg mu di fi nekk ku mujj a ñëw di ko xool ñun ñi ñëpp ci ay téere lañ jànge te téere yooyu kenn xamul kañ leen liñ bindoo kon nag lu am solo jëf ju am solo jooju nga def moo tax ñun bi ñuy ñëw ñu gisoon ne ñi ngay dundale xam-xam ci bis bii ak jëmmal gi ngeen koy jëmmal woote boobu war nañ leen cee moo tax li ñu tënkoon ci ay wax bu doonoon lu gàtt ñu tënkoon ko ci genn xasiida ton xam ne mooy doon tontu li nga xam ne moom tontu ci woote bii di dellu nag di santaat di gërëmaat njaboot sëriñ Modou Faty Khary fi teew di leen wax ne loxo boobu ngeen tàllal fekk ngeen ñu ci ñun itam tàllalaale ngeen tàllalaale ngeen ñu te fas nañ ko yéenee ànd ak yéen itam insha allahu ila abadil abad wasalaamu aleykum wa taala wa ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant suñu boroom mi nga xamee ne moo ñu xéewalewaat ñi fekkewaat bis bu tedd bii ak guddi yu tedd bii di ñaan lépp loo xamee ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla suñ boroom nangul ñu ko te fekke ko ay déwén yu bari di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati kàddu yu nuyoo di ko jëmale ci képp koo xamee ne bokk nga ñun jataay bu tedd bi walla nga ñuy déglu di leen nuyu bu baax di leen ziyaare bu baax du leen ndokkeel bu baax ci waxtu wu tedd wi ak ci place bu tedd bi kàddu yi ni ko sëriñ murtala sille waxe dañ ko yëkkati ci turu sëriñ Cheikh Abdou mi nga xamee ne moo jiite comité d'organisation bi te mata ko sëkk ndax organisation bi lépp ci loxoom la ko soxna baale ak Cheikh Mouhamadul Mahfouz teg ci loxoom waxtaan yi ñuy def nii ak muxaadaraat yi yëpp ci xelam mu rafet la kon dañ ko ciy ndokkeel bu baax di ñaan suñ boroom dëgëral ko mu yàgg ci loxoom te ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom kàddu yi nag kàddu yi cant rek ak kàddu yi ngërëm la dañuy tàmbale cant gi ak ngërëm gi ci ki nga xame ne moo doon def waxtaan bi di sëriñ Afia Ñang sëriñ Afia Ñang ku ne xam na ne dundam jëpp ci lislaam la ko jeexale ak ci xam-xam ak di ko tasaare rawatina njàngalem sëriñ Tuubaa man moom dama cee amuk xaas ndax dama ab sama ustaas la damay jël bind ci moom lu bare bare bari kon ñu ngi koy sant ci turu sëriñ Cheikh du ci waxtaan wu sell wi nga xamee ne def na ko te mu kawe njort di ñaan suñ borom dëgëral ko ba lim yéene liggéey ci xam-xam ak ci tasaare njàngalem sëriñ Touba. suñ boroom àggale ko di yëkkati kàddu cant di ko jëmmale ci suñu gan yu tedd yii nga xamee ne wuyu si nan ñu gën gaa rafeti wuyu si ndax suñ boroom moo wax ci alquran ne yaa ayyuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirasuli ida daakum lima yuxyikum wuyu si nan ñu gën gaa rafet ci wuyu si wuyu si boo xamee ne wax dëgg yàlla kawe na suñ njort ni ko Cheikh Abdoul Ahad bu su waxe mbir mi lépp lenn la mbir mi lépp lenn la guddi gi guddi gi nga xamee ne dañ koy dundal ndigal li ñoo bokk fu fu mu jóge sëriñ Fàllu moo jox ndigal sëriñ Afiyatu Buso mu koy dundal waaye itam moo jox ndigal soxna may muutu Mbàkke mu koy dundal sëriñ du Faati yi moom it ku ne xam na ni mu woon ak soxna may munatu Mbàkke du jar ma ci sunu yaay jee ju tedd jee toog di soxna may Mbàkke rek doy na ci firnde kon lépp lenn la lépp lenn la li tax ñuy dundal guddi gi weesuwut sàkk ci ngërëmul sëriñ Touba kon bu Cheikh bu amee initiative bu rafet bii ni mu ko waxee ci biir rek yéen a jëmmal yéen ko jëmmal yéen a ko saxal kon ñoo ngi leen ci sant cant goo xamee ne ci sunu xol lañ ko tibbee di ñaan lépp loo xamee ne suñ boroom dig na ko ci ak jokk mbokk ak bennoo ak ànd lépp loo xamee ne suñ borom digge na ko ci yàlla nañu ko yàlla na leen ko suñ borom jox ci barkeb Sëriñ Touba ni ma ko waxee rek li tax ñuy woote mooy danoo woote jëme ci jaamu yàlla jëme ci dundal xam-xam jëme ci tasaare xam-xam te woote nag woote boobu woote gën koo màgg suñu boroom ni ma waxe ni ma ko waxee ci aaya bi dane yéen ju yéen way gëm ñi na ngeen wuy ji buñ leen wooyee ci loo xamee ne da leen di dundal jataay mel nii dañuy dundal rawatina dundal sunu ruux ndax ni sunu yaram di soxla dundu sunu ruux moko gën moko ëpp lu ko soxla ndax yaram mom manonawah na wax ne ci aduna la yam waye li nga xamé ne day sax dak nak moy sunu ruux te jataay yu melni rek lan koy dundalé ci jaamu yàlla ci jataayu xam-xam ci tudd yàlla ci loolu rek la suñu wax di dunde kon kàddu yi mënta weesu kàddu yi cant rek kàddu yi cant rek la ak di leen tàllal suñu loxo di leen wax ne lépp lépp rek lenn la ñoo bokk Eh, liñ jublu ci dundal gi ñoo bokk fu mu jugee ñoo bokk luñ ciy sàkku moo tax dañ ko war a ànd kon eh, ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ci wuy si bi nga xamee ne wuy si gën ko gën gaa rafet ak wuy si ci kilif kilifteefu sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Modou Fati Xari ak sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Fallou Bousso mi nga xamee ne mooy xalifa sëriñ Afiatu Bousso ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di sant itam mbokki taalibe yi nga xamee ne ñoom it ñoo ànd ak e, sëriñ bi ak soxna Bali bis bu tedd bii di leen gërëm ñoom bu baax ndax ku ne xam na ne jamono ji xat na waaye dañoo bàyyi seen lépp ñu ànd ak ñun bis bi di sant yi itam ñi nga xamee ne ñooy jàllale waxtaan wi di journaliste yi ñoom it man noonu wax ne li ñuy def fardu kifaaya la bu bu ndax am na ñoo xamee ne euh, fekki wuñ jataay bi waaye ñu ngi koy ànd ak ñun kon loolu tuyaaba ju rëy la euh, kon ñi ngi leen di bàyyi loo xam rek ne jataayu xam-xam yi nga xamee ne dañ ci waajal bis bi day wéy di continuer suba am ñu ngi koy waajal ci kër soxna si jagleel ko di waxtaane ci xaside yi sëriñ Tuubaa yi sëñ Ahma Daaral Muxti moo koy def ginnaaw suba itam moom it ci kër soxna Baale lay doon moom it ñi fay waxtaane yaakaar naa ñi di ab colloque boo xamee ne ci xam-xam lañ koy def moom samedi la le deux moom it colloque boo xamee ne dañ koy def ci crise bi nga xamee ne moom la njàngale mu réew mi am ana eh, am na jàngalem daara naka la mën a indi ay saafara ci crise boobee yi itam mooy bis bi nga xamee ne dañ ko jagleel waa kër Serigne Touba yu jigéen yi ren ñu tudd ko soxna Mariama Kunta talaata itam noonu la conférence bi nga xam mooy ci conférence yu mag yi la bokk tan jagleel ko sëriñ Mouhamadou Moustapha moom it fii lay doon ci asalam euh, àllarba itam moom lañ jagleel jigéen ñi ñu koy defee ci kër soxna sax kon waxtaan yi waxtaan yu continuer lay doon ba bisu Laylatul Qadr ñu ngi ñaan ñi ñu ñu ñu àggale ko ñu àgg ci ak jàmm te lépp luñ ci def euh, sëriñ euh, suñu borom nangu ko ci barkeb sëriñ Touba te itam suñu pilifa yi tedd yi nga xamee ni itam euh, ñooy taxawu bis bi di sëriñ Mouhamadou Mahfouz ak soxna Bali suñu borom yàgg leen fi ba lépp loo xamee ne yéene nañ ko ci bis bi ñu mottali ko ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi sant ñëpp euh, di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala da, maymunata da, bakiyu maymunata maymunatul bakiyu